Ben association bu tudde de and do dooleel Jalaw te ñu doon def sen deuxième édition régate maanaam rawante la première édition bi ñoko lancé de deuxième bi ñu de ko mais liñ ci jublu c'est euh, biral sen engagement si euh, gannaaw Benno Bokk Yaakaar gannaaw président Macky Sall ngir inshallah le 31

ñom ñoo assurer suñu sécurité pendant la durée campagne bi yëpp ñu ne nag euh, li len di gënal pour firndel sen attachement ak engagement bi ñu am ci gannaaw benn Bokk Yaakaar ak président Macky Sall mooy seen gala bi ñuy organiser pour seen anniversaire ñu jagleel ko benn Bokk Yaakaar jagleel ñu ko ñu nit ñu ànd ñun ñëpp ñun waa benn bu commune yeen dem fekk ji leen si quai de pêche bi mais euh, que ce soit Toubab jalaaw comme Njangal je yañ fa fekk euh, engagement moy dinañ def tout ba bu le 31 nous am une victoire éclatante euh, pour la majorité à l'Assemblée nationale si gannaaw président Macky Sall ak benn Bokk